waaye loo xam dañ leen tuddee ay kilifa yi ne ñu nekk ci seen bakkan ak seen bànneex dox ku ci dee yàlla lakk la man Ahmadou Mbacké maa ko nañu jub xocc sëñ Bamba loolu la doon jàngale jub xocc wan gannaaw adduna wan gannaaw bakkan wan gannaaw bànneex ñu jub yàlla moo nu bind moo nu moom moo nañu sax ci njub nañu sax ci dëgg suñ ñaari biir yii biir bàmmeel nañ ko ba xel ci lañ jëm de ku ca dugg te yu bàyyi woo ful baax da ko réccu de ku waaye man di wétli te du yàlla da ko réccu wétli leen yàlla moo nu bind moo nu moom moo nu melal moo nu kattanal wattandi ku leen ak tooñ as tooñ moroomu su ab jullit